saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Modou Xarañ Lo ma journal ba dellu si waat ci lenn ci carrière am diggante doomu parcelle bi ak waa Pikine ci la journal ba xëy def jàngat ñëw ci ñaari defet yi Eumeu Sène am ci kanamu Modou Xarañ journal ba fàttali ne ñaari yoon yi Eumeu Sène di tase ak Modou Lo yépp dafa ñàkk bu njëkk bi le 31 janvier 2014 la woon Modou tegal ko 16 mu daanu jaaxaan beneen bi combat royal la woon le la sonalee waa ci carrière mbëru Pikine bi mu njëkk a tasel Bouba la woon ba mu ko daanee la tekki ngembam bàyyi bëre amaat na keneen ka ñuy wax laay bay ca Pikine def ko na mu def Bouba Diop muy ñaari ndam ci waa Pikine mu am Eumeu daan ko ñaari yoon muy ñeenti ndam journal ba xamle ne Ama Baldé mam war a tasel moo war a nekk juróomeelu mbër ba mu am ca Pikine ndax Ama Baldé dana réussir fi Bouba Diop essuwe laay bay essuwe fa Eumeu Sène fa journal ci combat bi doon dox ci digganteem ak Alioune Seye 2 le 9 février foofee ci arène nationale foofee xiiroo ngaayoo moo fa amoon ak xeex bu metti ba combat ba agul ba CNG xëyee la jël ay sanction daal leen koy séddale ñàq jariñu am 1 an Alioune Seye am 6 moom ñàq jariñu nag ci yoon ci weeru février atum ci la suspension war a jeex moom nag la muy sàkku mooy CNG may ko seconde chance jéggal ko moom ñàq jariñu ku ko ñaanal njekk mu jël ku mars bii ñu weesu ci àndum de dafa jël bëtam teg ko ca kanam ka njëkk a nekk cible am mooy Diène Kairé mu ne gannaaw daanaa bébé Diène na Diène Kairé ñëw ma teg ko ci bu ñemewul ñu jox ma wulli dëw wala kéwél ñetti mbër yooyu laa teg bët kuñ ma ci jox ma defal la bagage keneen ka a defalaate bagage mooy fils de Zallo gannaaw ba mu jógee ci defetam ci caatu ngéwél dañ koo jox abooy moom la mu xam le mooy abooy mbër kaami waaye du am dara sama digganteeg bu Fass mu jute sotti gannaaw ba mu jógee ci victoire ci fin de saison daaw digganteem ak naan ni fal dafa jëloon général bu Fass ngir confirmer dafa bëggoon a woon ax lu làmb gépp ne defetam ci kéwél njuumte la woon waaye combat boobee ñu jàppoon le 4 avril mu jute sotti ndax jàngoro ji journal ba xam le ne lu jiw jeexul jógu fa gannaaw combat bi taxaw na te mbër yaa ngi fi bu jàngoro ji jàllee combat bi am bés bu boobaa danañ xam diggante général moo ci mën sa morom jërë ngeen jëf a fës